وعلى آله وصحبه ci ne dafa ab nu ko tërale màggal gi moom daa féete kaw lépp màggal gaa ngi fi gàmmu gaa ngi fi xasaayit di def lu wirgo yi daa bari waaye dafa mel ni tëralin wi wone na màggal gee féete kaw lépp màggal gi moo féete kaw lépp boo gisee di du ko Serigne Saliou tërale mooy li ci tegu mooy gàmmo gi gàmmo gi xasaay jëm la boo ko waxee wax nga lépp lu yoonu murit dara des di noonu rek la demee. لها مماتا حنان نفوسا وليزوايا زاغ تنبيسا loolu Sëriñ Saliou day loolu ba ma koy wax mooy màggal gi dul yëpp mur yëpp ci sóobu ku nekk def la nga man mënu ci nekkee di ko defal ba am bis moo ma ko wax ni ma yii ngay def muy berne yi ngay joxe bu mu yemati rek ci sa njaboot mu yemati rek ci ngay yan di indi ci sama kër gi na nga wër sancaat yi dëkk dëkkaat yi ñëpp di ko yaakaar sa waa kër yi bu ñu leen berdee ba jot doyal nga xalaat ñi ci des waaye nag na nga tàmbalee sa waa kër ca tàkkoot bi Serigne Saliou dama ne yi lii ngay def boo ca tàkkoot bi ba duppi na nga ci teg. sajjaat yi ñi nga ni ba ma wootee ni ñëw leen dëkk si tuuba ñi ko mën ak ñi ko mënul yëpp dañoo ñëw te ñi ko mënul bari lool waaye sama ndigal ñoom ñëpp ñu bëgg koo jëfe te am na ci yoo xam ni jëfe ndigal rek moo doon seen yitte waaye mënuñu ko bi ñuy ñëw boo xoolee ni ñu dëkkee. ci ngay xamee ni dañoo jëfee digal rek waaye bu ñu jukko yow nii nag damaa bëggoon lii xam ni bu màggal jotee yaag sa waa kër moom ngeen di togg di ko ëndi sama kër gii damaa bëgg nga ko nga ko njaal benn gi ci yow sa waa kër ca tàkkoon yi dee leen bu ñu nuppee na nga ko jox sajjaat yi maanaam mooy ñi nga xam ma wootee ba ñu ko mënee ak bañ ko mënul loolu sax ay sajjaat léegi xam nga ndax sajjaat kat buñ bëgg a weesu fukki at xam nga ab dëkk la da ay dëkk la ju waaye nun diggalab la loolee ba tey nun day yees ci nun danoo jàpp jëpp sajjaat rek ñii ñëw ñëpp danoo jàpp di fii mu ne màggal gi moom ñëpp ca ñëpp ko aajoo kon sañcaat yooyee woon te sañcaat gan lay doon te gan ba dëkk see ak léegi kenn xamul léegi ñaataat la yàgg na kon muy tuñoo tudd sax ay sañcaat waaye nun waxam ja moom moo moo moo nu buudu yitteel boobaak léegi ña sañcaat booba danoo jàpp ni ba tey rek nun dañ leen di jàppee seen caat fan ko daal di yóbbu ci boobu bam nu ko waxee aada joojee ëpp naa bàyyi noo nga ca ba tey dañu ko yokk nag ren jii li ñu ci bëgg a dolli mooy ren jii dañoo bëgg yóbbu bernde yi ba njaariñ dëkkub Sëriñ Tuubaa boobee ren jii berne yi dañoo bëgg mu saaw ba njaarim waaw njaarim ret yi lii gis am na ci loo xam ni dañu koy wéyale njaarim ñu ñu toggee ko fa ndax danoo gis ni ah xam naa kenn kenn daa bëgg nit ñëpp am nañu fii. ndax kenn xamul ñu toll waaye njaareeb day dëkk bu ñor Serigne Touba njaa njaareeb bokk ci cosaanul yoonu murit cosaanul yoonu murit ba tax na ret yi fas lu yéene eh, barske ko ba njaareeb incha allah. ah déedéet mëneesu ko kenn mënu ko déedéet tey du jaadu ak cat doo ko def ba pare naa def na nangam waaw day mel ni kon da ngay waaw waaye ku ne nit yi la ñu di waaye koy bu xool waaw waaw ku xamul it ah di xam waaw waaye nu def ko ba duppee naanoo def lii nangam la loolu. da dootul ak cat ak daa bokkul akub tiitër te def ba noppi naa maa def lii daa bokk ci tiitëru kon nun dañuy def rek nit ñi nag dañu xool rek waaw dañuy seet rek nu daal digalul sëriñ beeru ñor ci ne waaye nag naa daan gam la def loolu boobu mënee su ko dee su ko def waaw amiin